mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah su ngeen gisee jataay bi xam ne am na lu bëgg a xew li xew mooy lan fàttaliku téeméeri at yi Serigne Touba am fii ci Touba ci ndigalal xalifatu am di Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi suñu borom ko waaye rakkam jëwrinam di sëñ Amadou Moutar mi nga xam ne mooy kilifa barab bii sëñ Mountakha jox ko ci ndigal ci téeméeri at yooyu Serigne Touba am fii ci Touba ñu war ko yaatal Euh, ci àdduna waaye rawatin ci Sénégal waaye rawatin ci Touba Mbacké gii ñu nekk loolu nag tax ñu tànn benn comité de pilotage boo xam ne moo yore liggéey ba te Serigne ci Mbacké moom Serigne Abdou Aziz jiite ko ak ñim ko àndal waaye ñu war ko ci dëkk yi ñëw fii ci Touba nag pour ñu war a taxawal comité boo xam ne mooy saytu liggéey bi fii ci Touba ci tàmbali ba ci fin comité ba Serigne Moussa Mbacké du yooli jiite ko ak mboolem buntu kër Cheikh Moussa yi ak Cheikh Mamadou Lamine ànd boo bii sëñ bi bëgg ba tax lii am nag moo tax jataay bii nii lañ ko fas yéene tërale incha allah danañ jox sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne moom la fi comité de pilotage bi yabal mu wax leen li tax ñu yabal ko fi su noppee danañ jox sëriñ Moussa Mbacke Dioli mi nga xam ne mooy coordonnateur bi su noppee danañ jox sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngeeraan mu leeral centenaire boobu ak warteef yi ñu ci war a dox ak lan mooy lay bis ba bu noppee jox sëriñ Cheikh Sey mu woote ci turu kër yi nga xam ne ñoo daje woon fii su noppee njox soxna Waalo Mbàkke mi nga xam ne moom wax ci turu njabootu Cheikh Moussa ak Cheikh Mamadou Lamine euh, nee na sax mu netti njabootu Cheikh Moussa waaye mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp soxna Waalo wax ci seen tur kon noonu lañ ko fas yéene tërale incha allah kon ñun ñëpp ñu maase teewlu. ñu ñëw fii dajeeg njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara ci ndigalul Baye Ahmadou te lépp bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu mu jaar ci comité de pilotage bi nga xam ni moo yore liggéeyu màggalu centenaire ku tedd ki bi mu see Touba te Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Aziz Bara jiite ko Serigne Moustapha mu Serigne Cheikh Gene Fatma Serigne Ousmane mu Serigne Cheikh Gene ak ñoom Serigne Sidi ma ànd ak Serigne mii ak Serigne Moustapha nga xam ni ak Serigne Sidi Aziz nga xam ni ñooy yore commission finance ak relation yàlla dogal. bi ñu wëree tàmbalee ko ca Serigne Touba Cheikh mun taxa dem ci bunt kër yi Serigne Touba yëpp Touba gi nga xam ne fi lañ koy ubbee di ko fi tëjee itam day yell ci ñoom ñu def benn comité boo xam ne comité local lay doon moo waral jataay bi ñu ñëw bu ngeen ñu gisee fii ñun jataay sama toogaay fii ak toogaay suñ sëñ laat bu toogoon fii mën na maa yóbbaale Serigne Ousmane mënoon na ñëw fii toog yóbbaale wala seex Cheikh Sikab waaye suñ bàyyi ko guyum bi ni ñëw fii dafa am luñ ci jublu mooy xam ni njaboot gi benn la ñu àndandoo di defandoo lépp ne ci suufu ron kilifteefu Seex Ahmadou Maxtaar noonu la ñu bëggee taalibe yi boo gisee jataay bi ni mu mel nii taalibe yi Cheikh Moustapha ak taalibe yi sëñ sëñ Cheikh leen baara ngeen nekk wenn say àndandoo def benn fédération boo xam ni du yem fii su ma centenaire bi jàllee itam loolu mooy wéy di ñaan suñu boroom def ci tawféex ak ndimbal ba sëriñ bi ni mu ko tàmmoo mu mel noonu ndax Touba lay ubbee Touba lay te lu am Ndakaaru fukkam war naa mën a am fii lu am Louga ñaar fukkam war naa mën a am fii kon liggéey la boo xam ni nii ngeen boole seen bopp euh, nekk waxtaane ko muy lu dëgër ñun rafet na suñu suñu suñu xol seet na ci bu baax a baax te itam mën naa ni njabootu Cheikh subaa gi daje fii ak njabootu seex Cheikh Mounir bari loolu jar na centenaire bi ndax lu rëy la lu am solo la te fekk na sax mu am waaye day gën a dëgër gën a rafet kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. di woote nag mbooleem taalibe bi boo xam ne ab murit nga nekk Touba. nekk senegal ñu ngi lay woo ci bis bii bis bii du Daaru Xudoos ko moom du Guy Mbind ko moom murit yëpp a ko moom ndax Sëñ ñëpp ko bokk murit yëpp a ko moom naka jekk nag waaye rawatina ren nag ñu ubbi ko yaatal ko muy centenaire di téeméereelu at ba tax na kenn koo xam ne yaa ngi yeewoo ci yoonu murit kuñ ci bàyyi amut rawatina nag waa nga xam ne le treize bi ñoo ko moom fas yéene nag kenn bum ñu man ndax Sëñ Tuubaa mooy borom Touba te sëñ Modou Moustapha moo tax mu ñëw Touba kon bu ñu nee waa Touba le treize lañ la ñuy woote kon dañ ci woo waa waa Touba gépp ak mbooleem ñi nga xam ne wër nañ Touba ñu fas yéene yow jàpp ci bis bi ba képp koo xam ne ti woote woon nga boo gisee suñ suñ ndaje mi da nga xam ne la nga la nga defoon da ko xeeb ndax sëñ Touba noonu la doon liggéey la boromam kon nag ñi ngi woo ñëpp murit yëpp ñi ngi leen di woo du ma ne Daaru Xuddoos du ma ne genn kër murit yëpp laay wax bu ma ñi ma tudde sëñ Muntaxa tudde ko Cheikh Amadou Mokhtar moo moo moo mboole mboole murit yi ne ci biir biir biir biir réew mi rawatina ñi ne Touba kon fu fu nit nekk ci Touba la treize ñi ngi lay woo ci kër sëñ Touba gi ci Darou Manane ñu fas yéene faa yendu waxtaane fa sëñ Touba waxtaane fa centenaire bi waajal ko lépp lu ci war ñii nga xam ñooy comité de pilotage bi la ca war lépp daañ ko def ñu topp ci seen ginnaaw fas yéene leen ànd ak ñoom fe lépp loo xam ne nag joxoñ nañ ko ñu fas yéene koo dagg fa yéene koo def téeméeri at yooyu yi yoon wi dox ñu fas ko yéene fàttaliku fàttaliku sëriñ bi fàttaliku njëmbat lim fi bàyyi woon fàttaliku njabootam gi nga xamante ni ni ñoo yoroon yëf yi doon ko doxal ba mu agsi fii mu agsi ci loo xam ne bañ koy sos dañu tàkk-tàkkal mboob la ñeneen ñi ci des ni du sori téeméeri at gannaawam sëñ Ahmadul Muxtaar mi nekk ci boppu njaboot gi suñ borom dogal mu jiite ko ci ndigalul ki fi nekkal suñ tubaa ñuy fàttaliku téeméeri at yooyu tuubaa nag am ci bis muy le treize ñu séddi ko waa tuubaa ñu war coo taxawee ñuy fàttali mbooleem njaboot gi fu fi nekk ak fu fi mën a nekk ñoo xam ne bis boobu yi sunu bis la ñu cay waxtaane nag jàmbaar joo xamante ni ni ñëpp dañ ko umpale Sëñ Abdou Khadir daan wax rek bu ñu waxee mu ni cey am di ni tur wi siiwee ak ni fan wi gàtteeg ni jëf ji rëyee ñett yooyu yi mel ni ump na doomu aadama yi ba tax na ci la tërees bu ñu xëyee danañ danañ ko waxtaanee ngir fàttali ko ngir mu nekk na moo sujul amsal ci génération future bii ñëw ñu xam ni ku mel noonu la sëñ Tuubaa doon produire foofee mu tegoon tànkam la sëñ bi bëgg nu delloo fa sunu tànk objectif am yooyu la sëñ bi bëggaat nu jëlaat ko. ndax lu yàgg soppiku téeméeri at yi ñu jëm nag li ñuy bàyyi ci loxol gone yi war naa doon lu leer lu wér cëng moo tax ca ngoon ga la ñuy waat borom yoon wi muy sëriñ bi ak lim fi bàyyi ngir génération future bii ñëw ndax téeméeri at yi di ñëwaat moom jàpp ma ni ñun danañu fekk suñuy sët la ñuy wax kon war na leen bàyyi bàyyil ndonu lu leer loo xamante ni nii bëgg nañ ñëpp soññe ngir fekk si jataay booba boo ko kenn nettali kenn kenn ku ci nekk ñëwalal sa bopp sëriñ bi lim doon woote ci alxuraan ak sunna la ko bàyyi woon njabootam gi fi nekkoon gannaaw bi loolu lañ doon sàmm bañ agsi fi loolu rek moo ci kàddu yi bu ko defee ñoo ngi soññ nag mboolem bokk yi ci njàngum alxuraan salaatu ala nabi istixfar ak xasida dikru ilahi maa dikril mustafa bil mathi wa salaati hasbi wa kafa kuy defal suñ tubaa boo ko tënkee loolu yaakaar naa sa jaan wàcc na te sëñ bi kenn du ko jam naa ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ak buñ màggalee ba ci suba si bisub le muy cérémonie religieuse bi te ñu ko amalee fii ci mbaarum daaru xuddoos ñu ci woo mboolem njabootuk daaru xuddoos ak guy mbind gépp mboolem bunti këri Cheikh Moustapha yi tàmbale ci bunt kër Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbacke Madina daayira sëriñ Dan Xarilo daayira sëriñ Aliou daayira sëriñ Xaadim daayira sëriñ Salih Mbacke ambassadeur daayira sëriñ Ahmadou Tindodi daayira sëriñ Ibrahima Hafsatu daayira sëriñ Fallu ak daayira sëriñ Ahmadou Mokhtar ak mboolem njabootuk Cheikh mu gu jigéen yi daayira ya fa nekk waaye tam ak mboolem daayira cheikh yi ak sopp ak daayira Ahibayil Hasan ak daayira Ahibayil Xadim ak mboolem dawaayir yi fi nekk yëpp rek ñi ngi leen di fàttali di leen soññi bisu la treize bi ci wàllu mobilisation ngir ñu xam ne ñoom de ñooy ña fa war a jiitu waaye ren mu am ci exceptionnel muy nekk gi mu nekk téeméereelu at ba tax comité bu mag bi judd ngir di ko saytu waaye ñu ci soññi mboolem dayira yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn dayre bu ci nekk daal daa war a jàpp ne bisub la treize mooy dafa war a jiitu waaye bis bi xam ne mooy cérémonie religieuse bi tam nga xam ne suñu màggalee ba ci suba lay doon te mbooloo mépp war a dajee te nga xam ne noonu la ko Cheikh Moustapha daan defee saa yu ñu màggalee ba bët set mu dajale taalibe yi soññi leen ci jaamu yàlla fàttali leen ngir ñu amee ak waar ci bis bi waaye itam ak la ca am lépp bis boo xam ne Cheikh Moussa dafa wax ne juboo naag boroomam ci ku fi fanaan set wecc ci ay bakkaar bis boobu suñ ko dee waajal di ko waajalee bis yu mag yii muy la treize bi kenn ku nekk daa war a jàpp ne su demul kenn demul la treize bi nag ñu ngi koy amalee ci Daarul Marnaan kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daarul Marnaan kenn ku nekk su xëyee lay wartee fa muy jëwriñ ju nekk te mboolam jëwriñ yi teew nañu fi jëwriñi jëwriñi bunti kër yi daaru xudus yëpp ak jëwriñi guy mbind yëpp ak seex seeg yëpp seen i jëwriñ teew nañ ci jataay bii nga xam ne kenn ku ci nekk su fi jógee soññi aw mboolam mobiliser leen ba la treize boobu kenn bañ leen faa jiitu waaye itam ñu ànd akuk teewlu ba lañ fay waxtaane lépp ñu mën koo jariñoo ndax jataay la boo xam ne jataay yu yërmande la ndax wa inda dikri saalihiina tansilu rahma fu ñu fiy fàttalikoo waaju baax suñu borom dafay wàccee yërmandeem rawatina nag ñuy fàttaliku jëmm yu tedd ku mel ne Cheikh Moussa nga xam ne bu yoon wi egsee fii tey mooma waaye tam di ci waxtaane waat ki nga xam ne moo waral lépp di Seyxul Xadim radiyallahu taala anhu kon ñu ngi ci soññi ñëpp di ci woo ñëpp waaye tam di woo mboolem daayira guy yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn ak daayira cheikh si yëpp ak soppe yi ak daayira ahbaabul Moustapha mboolem daayira yi soppe yi bàyyiwuñu kenn ak daayira turandoo cheikh Moustapha yi bàyyiwuñu ñenn kenn ku nekk daal na jàpp ne su teewul ca bis ba kenn teewul kenn ku nekk na jàpp ne bis bi bisama te itam moo fa war a jiitu moo war a dalal gan moo fa war a mujj. di soññ daayira yëpp nag daayira Cheikh Moustapha yëpp ñu ngi leen di soññ daayira sëñ Baara yëpp ñu ngi leen di soññ amatul tëdd amatul nelaw amatul dara nañ jéem a takku liggéey ba tase cee ngërëmu sëñ bi te yàlla buñ ci am benn pakk yàlla buñ ci am benn euh, jafe-jafe te lépp yàlla na ko yàlla yónent bi ak sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Moustapha def ci xéewal yu bare bare bare bare bañ fekkee lépp ba niñ ko bëggee dëkk yëpp a koy def de waaye yàlla na Touba jël ndam ne ndax xam naa Touba moom takku nañ taxaw nañ ñun nag ñoo ngi nii rek toog seen ginnaaw di leen déglu lu ngeen sant ñu def te yàlla bu ngeen di fekk ci lu ñuy tere guy mbind ak Daaru Xuddoos moom du ñaari kër genn kër la kon ndokk ba nu yàlla booleel te mën a ànd kon suñu ànd bi yal na ko yàlla yontu bi sëñ Tuubaa Mbàkke saytul boppam ba dara saytaane du ci dugg yàlla bu ci saytaane amu yoon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf mbokk yi gannaaw bu ñu dégloo kàddu yi sëriñ Cheikh Thioro yi ci ndigal li nga xam ne moom la fi ñëw ci turu sëñ bi waaye ñu déglu kàddu yi nga xam ne sëriñ Moustapha Diop mi jiite kuréel gi. waaye déglu sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane ci sababu bis bi ak waajtaay wi ñu ko war a waajal waaye bu ñu dégloo wooteeb sëriñ Cheikh Sey bi nga xam ne woone na mboole murid yi mboole murid yi nekk ci tund Touba la ko wër nga xam ne bàyyiwuñu benn daayira daayira yi ci Touba yëpp fu waay mën a nekk woo dugg nga ci biir woote bi ndax bu ñu nee taalibe sëñ rek daayira yi taalibe sëñ Touba ci nekk kon bàyyiwuñu kenn li tàmbali ci kër Cheikh Moussa ba ci kër Cheikh Mourtada li tàmbali ci kër Soxna Fatia ba ci kër Soxna May bàyyiwuñu kenn kon woote bi foofu la soxna Waalo Mbàkke ku déglu ni mu waxee wax ko ci turu soxna yi njabootu Cheikh Moussa gi Cheikh Moussa gépp waaye di woon mboolem soxna ñu bokkal Serigne Touba ndax koo tey doo dara ci Serigne mutu yet woote bii nag Serigne Touba dong la lépp loo déglu ci woote bi Serigne Touba la ndax bu ñëwutoon Touba gi duñ nañ tal leneen ndax waxoon na ko Cheikh Moussa su ngeen xoolee ba yóbbu leen ma Touba dana mel ne liggéey lu ma leen dara kon ñëw gim ñëw bis boobee la ñuy màggal waaye ci téeméeri at yi mu fi am bis booba la ñuy fàttaliku la ca sëriñ Cheikh Moussa jànkoonteel ak bokkam yam ba bis bii mën am kon loolu la ñuy woote di ci woo Sénégal gépp di wax ne nag samedi la fukki fan ak ñett ci weeru tubaab bis boobu yi nag bu ñu xëyee huit la ñu woo nit ñi ndax conférence mi ngi tàmbali dix heures dégg ngeen ni ko suñu am du Njaay waxee dana am ñaari conférence ci suba gi fu nu sëlmalee tisbaar xewlu kon tàmbaliwaat programme ngoon gi ñaari conférence yu jëkk ci Cheikh Moussa la ñuy waxtaan ñaari conférence yu mujj sëñ Touba la ñuy waxtaan ci ak dundam ci njàngam alxuraan ak nan la taxe woon Touba ak ñu melakaanam ci Touba loolu nag dañ ko mboolem borom xam-xam yi ci Touba Sénégal gépp lañ jël ndax tàmbali ca tàmbali lañ leen ne du liggéeyub Daaru Xuddoos du bugg yu mbind waaye liggéeyub Touba la borom xam yi ngeen dégg yëpp ci Sénégal ci liggéey bi lañ bokk kon ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaan yàlla bés bi ñu tàmbali ko bismillaahi rahmaani eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamina lépp luñ ci séentu ci ndigal Serigne Touba nam ko waxee woon yàlla na yàlla mën a dimbale ba nu man cee def ngir ñu bokk ci ñi xam ne ñoom la Cheikh Moussa di defal añ ba ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.